لله على النبي ولد عبد الله لله بسكر حقي من الغليب مع النبي ولد عبد المطلب بدل سملا عدو قاسمي ربي بجايل مصطفى بن عازمي لي جاد ربي بنوال غرف بالمنتخى مقداري من عبد المناف دعاء سجاب بالمغفي ربي بالمقداري من غدي أسألون إلى المنى بنذراب ولا خرور بنبي ابن كلاب لي جر بخيري واكفني مدى ربي بجاي مجبا لمرا bi بن بن بن غالب بدي وذخر لي كل ظهر وكل يوم بن بن بيري يا خيرنا ناصر وخير مالك انصر ومالك نيا بمن مالك قبض ويستي ونظري كونك لي فليكن بنظري رد للإله وليعم جنانا بالمصطفى مختار من كنانا يدلي بما مني رقيما وخيرها بمن داق نيما نجي جنابي من جوال منك والمشرك بالمصطفى لمدرك بارك لي اللهم في القياس بمن جعلت ليا إلياس انظر جنابي عند السيد المدار ولك حربني بجاه المدار نفتل لي ربي انصار فيك وفي خير الورى نور نسار آتيتني يا خير هذه الانهار انجسني وعدم بافضل المعاد يرفع كلي بنبي غدناني باركنا سيدي والبارخ جمعة مجموع والمبروخ أكرم رب العرس عرس النورين ووالدي سبتين في الدارين صبر صابت نبي القيا عليهم رضوان من القيا نبلين من لقل ويسوه محل هدا فجن المنصور رفع أهل بدر الإسلام والزنزان فجار السلام باب ميسر القناص وسر من لخو القناص بانا تقيد والقناص سابقة حياتي بنبي محمد أنت رفيق للجنان يا من يدعو للمكان

ليل ذكر الابتلاء بفم ذاكرا تلا زخل دواء من خلا قد جمع خير العلوم وخمر أنت النبيل والأنيس لي قدواي المقيس بخدمة الله الرئيس مقيسي بالملغم يا غير بك سألت مالكي كوني نور أسالكي وسنجى ساب ناسكي بمن جلا والمبغم وأن يقود للنبي في أبد بنقبي سلام المخرب بالامتحان والمختم بك بروم توا يلا يلا نانغوكو يا يجي برغب ضيق فدلمي بور يلا دولينو اي مقام يلا simi ilaahi ci barkeb sëy ci fëddilu mi buru yàlla dollenu ay maqaama yàlla xuqal buka wala sadaati maay baga way tey ma way fee sangub góor ñépp yàlla xalquka mag mooray biir moo gën ñi njëkk ña gën ñi ñëpp yàlla ku mel ni ma musu fee am mu ko doonu mi am te dootu am fii duniya wur na yàlla tey ma juy sequ ana soppey Sëriñ Fal yee te ji ma ñuy Seexuna Sëriñ Fal lu mbër ma ni mees mboolem lu nekk ci dunya juy ni Yàlla murid yi xaadiri ak tijaani ñëpp ma jooy ak suusa kasamaaw sing lu xum yàlla ak ñeenti fekk weer ak biddiili ma ngo njooy ak doñi ak njanaaw ye njaay alli yàlla malaayika ak jinne ak yeneen yi ma ngo njooy ak sabe ak xutub yaa walli yàlla ويد الروي في الدنيا يب كل ما رو يب جوينان كو جي سيغال يلا جولي دي انغور ak àddina ñépp ko jooy nunu ñépp jooy nanu ko ngir baaxam yàlla nawet ba jooy na ba far jax ga lott na boobee ru yëpp jàq na sëriñ man li yàlla mboolem lu nekk ci dunya lépp lépp nga jooy lu nu xam ak nu xamul mboolem lépp yàlla masil nañ ak la way way wi di sàkku yi ngaram ci yàlla sëriñ tuuba ba yàlla yi furna yàlla moo tax ma xam buut ya ak sëñ sëñ yamaan la ko ak doole jaag may ya ak xarbaq ma joy falu laay misil la ñang na daam saab sëriñ saab xarit cey ma sant yàlla fekk addunay tukki ñuy wax jëf a baax ji mu def ku def ñu wax la ko moo def lépp yàlla jiital sëriñ Bamba ak bur yàlla moo rey mbir mooy jiitu dunya rafa wu yàlla jiitu gi wër na ku ne xam gi tëj na ku ne وجلوخك رجال فاسفك في الله وين ما تقلم وخليك سموا جباي بين سرين قالوا لي ما جاخم لا يبقى هم اللي في الله falu wax mbir yu rëy mu def mu def sañ-sañ ya ak doone jaar xar baq yàlla kuy rëbb gaynde yor ak lasbeer asal du ko jàmba far ba sax du ko li wur na yàlla way ka di lay leebu ngir seen wax ci duur ñu wax sëriñ Fallu gaynde sama waaja gaynde moo man góor ñi yàlla mooy doomi saamaan situ ñangoor ko jógi ni way ku toñ sëriñ Fallu doo doo dolli yàlla sëriñ Fallu mooy ab sëriñ moo yaatu moo bari moo mu ñug suuf dafa lu yaatu yàlla moom daana fekk ku jëm ci daan ma ñu di ko baba yërëm ko tàmbal ko fil jannati yàlla moom daana fekk ku yor ba garab bi di liw mu foot ko laabal ko bam leer nañu yàlla moom daana fekk كفن ويجيق ويكفن ما يقصافن وي جي سرين بدل يلا يوم القيامة يوم الأسر فنجنمي سرين بامبا جيتلكو moo nuy raw na yàlla ku suuf siñ bal koy de tabbi jannatu ku noonu baay weex koy dinaar yàlla alhamdulillah yow yaaram bi kenn bañu la bur yàlla seede na lii sëriñ saa diw ngeen gi bañu la na ngeen ma déglu te sellal xol yi koy na xaar lu ne ci ko xaar yaram bi ngeen gi bañu la yéen ñu gaa yi diine dinaa leen wax ki fees sama xol bambaay ki fees sama xol yaram bi ngeen gi bañu la سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين